waa rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlaana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wajhal kalaami rashidan wa murshida wa nawir wa arshida mbokk yi ñu ngi dellu di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dellu di sant Cheikh Ahmadul Xadim di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. am nañu mbégte dellu siwaat ci seen rajo Futur Media RFM Dakar 94 point 0 ci seen jataayu émission bu mag bi ñu baaxoo di ànd ak yéen ajjuma bu jot. 23h jàpp une heure matin mu di seen émission yóbbalu jullit. ngeen baaxoo di ci ànd ak seen mbokk sëriñ Maam Mor Mbacke kenn sëriñ Touba Makhtar Samb moo ñu nekkal ci wàllu xarale gi ñu koy gërëm bu baax di ko sant. ci kon mbokk yi ñu leen di fàttali ne tey jii la vendredi dëppoo ak le 24 mai 2024 dëppoo itam ak fukki fan ak juróom ci weeru diggi tabaski ci atum 1445 ay ci kon Makhtar. lawoon fa woon nga daal di may wëlbati laab gi rek ñu dugg ci programme émission bi dem ci waxtaan bi la ko jiitu rajo service bi ñu leen te ñëw. yàlla defuloo kenn luy te mooy toog di la wéetal di la sant di la jaamu jëf nga nga neel ya lañu naru kon tawat bay toog di ko joytu buñ ko làmbaatoo daj njëriñ yaa salaamu yàlla dafa dul teggin nag ñuy toog dina xarte xorondom yay baagante riime di baamu ñu di tislu karay baat ak bët di la tuumal jéggal ñu loolu salaamu yàlla ñoo la war jaar feneen muy doon dëggi fitna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 sukuna tàllal lay yaa salaamu jaama ngir jaamu jaama way borooma rëccu naa taylu ma war la sukuna los gombaanu naa la baalu yàlla yow amal sama yi dool yaa sukuna yaa salaamu jërëjëf euh, Makhtar Samb jërëjëf euh, Kabir Sène jërëjëf it euh, mbokki auditeurs yu rajo Futur Media RFM 94 point 0 kaddu gi di bàyyi ko fii ci Médina rue 15 angle corniche ci immeuble El Hadji Ilimandour mbokk yi ñu am mbégte dellusiwaat ci seen émission yóbbalu jullit pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko rajo service bi fàttali leen la ko jiitu. waxtu julli lay doon ci mboolem réew bu Sénégal yëpp ak li ko wër fàttali leen daañu ko euh, doore fii ci Ndakaaru Ndiaye Jël Diop yi nga xam ne euh, moom moo di capitale bu euh, Sénégal suba ak jàmm 5h31 minutes la ñuy julli suba Tisba 13h37 Takusan 16h37 Timis 19h36 Gée 20h47. région lañ ciy teg ak la ville sainte dëkk bu tedd bale di Touba Mbacké. Euh, dëkk booba boobale di dëkku Cheikhuna Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, foofale ca Touba tey jii fa la ñu doon amal bisub alquran ak xasida ci ndigalul xalif général des mourides euh, mu di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachirou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér foofule ca Touba Mbacke la ñu ko doon amal niki tey jële lu bëri ci taalibe yi murid yi ña nga sàqi woon ci dëg maloon kon dëkk ba sell boobale ca euh, Touba Mbacke yéen a ngi fay jég gi yéen a ngi ñu fay euh, déglu ca RFM Mbacke ca 98 euh, point 4 ñoom suba ak jàmm 5 heures 25 la ñuy julli suba tisbaar 13 heures 31 takkusaan ki noonu 16 heures 31 minutes timis 19 heures 30 gee 20 heures 41 minutes Fatick di dëkku président Macky Sall ñoom suba ak jàmm 5h27 minutes la ñuy julli suba tisbaar 13h33 takkusaan ki doonu 16h33 minutes timis 19h32 ge 20h43 minutes. Louga loo di kër mbër gu bala ñaan soxna Nafisatu Njaay moo ñu nekkal foofale ca Njàmbur ñoom waa Louga suba ak jàmm 5h23 minutes la ñuy julli suba tisbaar 13h29 takkusaan ki doon 16h29 minutes eh, timis 19h28 gee 20h39 eh, minutes. Eh, Kaolack Ndangaan ak Medina Baye Niass dëkku Seexal Islam di El Hadji Ibrahima ñas eh, Baye Niass jàppoo Léona Niassène di dëkku eh, Maam Khalifa Niass ngin gineew dëkku Makumba Bay jàpp Poroxaan di dëkku Soxna Jaaratullaahi Maam Mariama Bousso ñoom suba 5h27 la ñu julli suba tisbaar 13h33 takkusaan niki doonu 16h33 minutes timis 19h32 gee 20h43 minutes Euh, Kolda ak Matam ñoom suba 5 h la ñuy julli suba euh, Tisba 13h26 Takusan 16h26 Timis 19h25 Gee 20h36 minutes Saint-Louis Ndar Géej dëkku El Hassi Alioune Badara Diagne Golbert waa kër Malal Signor Diagne yooyu la ñoom suba. Euh, cinq heures euh, vingt trois minutes la ñuy julli suba tisbaar treize heures vingt neuf takkusaan seize heures vingt neuf euh, timis dix neuf heures vingt huit gée vingt heures trente neuf minutes Tambacounda ñoom suba cinq heures dix sept minutes la ñuy julli suba tisbaar treize heures vingt trois takkusaan seize heures vingt trois timis dix neuf heures vingt deux gée vingt heures trente trois minutes. Euh, Thiès kaay benn dëkk yaari gar ak euh, Tiwaawan la ville sainte dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick Sy euh, bàyyu Serigne Babacar si jàpp Ndiassane di dëkku Cheikh Albekaay Kunta Canaba sekk di dëkku maam Amari Ndak Seck ñoom jàpp Mbuur Géej suba 5h29 la ñu julli suba. Tisba 13h35 takkusaan niki noonu 16h35 minutes timis 19h34 gée 20h45 minutes Ziguinchor Bignona jàpp Casamance ñoom suba 5h27 minutes la ñu julli suba Tisba 13h33 takkusaan niki noonu 16h33 minutes timis 19h32 gée 20h43 minutes Makhtar Samb loolu mooy waxtu julli yi ci mboolem réew bu senegal yépp ak li ko wër ñu jàll ci leneen. suma ma baaxul buur yàlla aw ma feneen it waaye xam nga yow na nga may def jaama ngi tey bu tooñ yi mu jaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way borom wuy bonu ñeewantewul rahmaan fu nu jëm kon xajuloo fen ci ñun ci jil ñu sa yoon di ñu om ñu naan kondam ba ca ya ñi ko denku mu wàññiku des di la jaamu yàlla loxo yeeg xol bi lépp a ngi jëm jaa ngi soppe yeeg doom yi ñépp a ngi yàlla aaral soxla yeeg aajo yeeg wareef yi ma war tey lépp ngoogu te aw ma jërëjëf Makhtar Samb wax na dëgg soxla yeeg aajo yi lépp jël nañ ko teg ko ci loxol yàlla suñu borom subhaanahu wa taala Euh, moom mi nga xam ne képp ku mu faj aajoom sa aajo faju waaye képp ku mu seetaan itam xalsan ngaa sànku àddina ak yàlla bu ñu yàlla seetaan yàlla nañu yàlla fajal suñuy aajo yëpp nag biir ak bitti yu ñu yëg ak yu ñu yëgul aajo yi ñu am ba noppi sax ak yi ñuy waaj a am te amaguñ ko yëpp yàlla na ko yàlla maase faj ñun ñëpp. Eh, ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Ahmadul Xadim ay eh, ci kon mbokk yu ñu daal di jàll eh, ci bis yi nga xam ne rek daañu koy moytu kon fàttali leen ëllëg ak jàmm bu ci yàlla ndees samedi lay doon. Euh, dëppoo ak euh, le vingt cinq mai euh, deux mille vingt quatre wala dëppoo itam ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru diggi tabaski ci atum mille quatre cent quarante cinq kon Makhtar Samb bisu suba bi bokk na ci bis yi nga xam ne rek daañu koy moytu lu may loolu itam lundi moom moo di altine dëppoo ak le vingt sept mai deux mille vingt quatre wala dëppoo ak fukki fanak ak juróom-ñett ci weeru wolof daañu koy moytu. jeudi mu di alxames euh, dëppoo ak euh, la 30 mai 2024 wala dëppoo ak ñaar fukki fanak benn euh, ci weeru ko diggi tabaski kon daañu koy moytu dimanche le 2 mu di dibéer le 2 mai le 2 juin 2024 wala dëppoo ak ñaar fukki fanak ñeent Eh, ci weeru wolof daañu koy eh, moytu lu lu may loolu itam mardi ak mercredi mu di talaata ak àllarba ñeenti fan ak juróomi fan mu di la 4 ak la 5 ci mois de juin ci atum 2024 wara dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom benn ak ñaar fukki fan ak juróom weeru diggi tabaski eh, daañu koy moytu lu may loolu itam vendredi mu di ajjuma dëppoo ak la 7 juin 2024 wara dëppoo itam ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru diggi tabaski tabaski eh, ci bis boobu ci la ñuy weeru tabaski bi bu feeñee nag ñu daal di xam ne samedi kon euh, le 7 euh, le 8 euh, juin 2024 mooy doon bis bi njëkk ci weeru tabaski bu feeñul ñu xam ne dimanche le 9 juin 2024 mooy doon. bis bi njëkk ci weeru tabaski ci atum 1445 Makhtar Samb loolu mooy euh, bis yi nga xam ne rek daañu koy euh, moytu kenn du ci tukki kenn du ci daloolu bees tàmbali ci dara euh, fas ci ëpp sëy xarafal wala watu yooyu yépp daañu koy moytu ci bis yooyu nga xam ne moom laa leen jot a limal ci weeru tubaab ak ci weeru wolof ñu jàll ci leneen. kon maa ngi delloo mbàttam la ndaa la ma naa ku ne lislaam ni allah gestu ni ahmad mi ñu nandal jaaraama ñeel na muhammad sang ba baayu zeyna bokkal mu soomu jaama ngee jaamu

na muhammad jaaraama jaaraama sang ba ca medina jërëjëf Makhtar Samb jaaraama ñeel na muhammad mu di bàyyu faatima yonente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moo gën ci lépp lu yàlla bind ci lu ñu xam ak lu ñu xamul lépp Seydina Muhammad bàyyu Fatima moom moo ci gën yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañu yàlla nangul itam ñu doon dëgg-dëgg ay jullit yoo xam ne Muhammad alayhi salaatu wa salaam dana ñu nangul suñu jullit eh, ci kon mbokk yi foofale ci dëkku Muhammad sax di makkatal mukarrama ja nga xam ne eh, foofu la yëkkati woon loxoom eh, woote wooteeb lislaam ne yàlla daf maa yónni ci mboolem mbindeef yëpp wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamina wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi foofale ca màkkatal mukarrama la ko waxee woon deux heures du matin moo fa tegal 23 euh, minutes Johannesburg ca Afrique di Sud une heure matin moo fa tegal 23 minutes Dubaï 3 heures du matin moo fa tegal 23 euh, euh, minutes Amsterdam foofale ca Amsterdam nekk foofale ca nu mu tuddati dëkk ba Maxtaar Samb Hollande Euh, foofale une heure du matin moo fa tegal 23 minutes euh, Chicago ca Amérique 18 heures 23 minutes moo fa jot mooy la ñoom ñu ngi ci euh, kon bisu tey jëlee ca 18 heures ca ngoon New York moom 19 heures 27 23 minutes moo fa jot New Delhi ca Inde. 4 di du matin moo fa tegal 53 minutes ñoom ñoo ñuy yokk ñoom ña nga ca 4 heures du matin ca suba Hong Kong ca Siin. ñoom ñoo jël raw gàddu ga ndax ña nga ca 7 heures du matin ñoom xëy nañu suba bay naan seeni i kaasi kafe seen i daggi mburu ca ëllëg ja ñoom ña nga ca samedi 7 ca suba ña ngay waaj xëy dem liggéey ñoom waa Chine Jakarta 6 heures di matin moo fa tegal 23 minutes Singapour 7 heures 24 euh, fii ci Ndakaar Ndiol jal Diop ak euh, mbooleem euh, su raison bi di heure locale bi 23 heures 24 minutes moom moo jot. et ci kon Makhtar Samb loolu mooy pàcc bu njëkk bi nga xam ne moo concerné woon rajo euh, service bi ci seen émission yóbbalu jullit xam naa kon dañuy daal di enseigné rek ci pàcc bi nga xam ne moom moo ci topp moo di éphéméride bi euh, mu di pàcc bi nga xam ne moo ñuy fàttali li nga xam ne moo jotoon a xew ci bisub tey jii nga xam ne moom moo di ajjuma euh, dëppoo ak le 24 mai 2024 la ko jiitu Mamadou Oumar Ba maa ngi lay nuyu. jërëjëf oustaz maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu auditeurs yóbbal jullit yépp ay ca kon ñu ngi lay delloo ziar bu baax yow itam di la nuyu auditeurs yi yóbbalu jullit ñoom ñëpp ñu ngi lay fay ci sama kàddu Momadou ba euh, tey jii la ajjuma vendredi dëppoo ak le mille vingt 2024 waaw ba vingt 24 mais moom lan moo ci jot ci àddina fooy tàmbalee fooy doore ak fan nga dëgmal. 24 mai 1837 lañ koy tàmbalee ñu xaatim ab ordonnance royale française buy porté wala bi soxal organisation judiciaire bu Sénégal première organisation ci wàllu yoon soxal colonie bu Sénégal mi ngi nekkoon 7 janvier 1822 gannaaw kon bi Sénégal delloo ci loxo français yi Gorée ak euh, Saint-Louis ñoom euh, la ñu jëloon kon ci loxo français yi anglais yi defoon ko atum 1804 di woon Gorée ak 1809 di woon Saint-Louis euh, traité franco-anglais bu Paris ñu xaatim ko 30 mai 1814 taxoon kon ba ñaari localité yooyu dellu ci loxoy France 24 mai 1837 euh, Bodian Daupha roi bu Bujee cédé français yi ab euh, benn terrain bu nekk ca sud bu village boobu village bu Sédhiou nekk ca Casamance 24 mai 1861 escadre escadron bu Safi ki ko commandé woon di capitaine Bossin attaqué troupe bu Lat Joor Ngoone Latiir Jóob foofee ca Ndànd 24 mai 1883 ñu lancé appel képp koo xam ni jullit nga gëm nga yàlla foofee ca village lébu bu Yoff euh, Seydina Limaamu Laay defoon ko ñu gën ko xam itam ci Baay Laay Mahdi tuddoon yàlla séede ko woote kon ci yoonam googu euh, fondé confrérie soufi bu Laayeen 24 mai 1976 ñu intronisé foofee ca Vatican ki ko defoon di Pape Paul V intronisé monseigneur Hyacinthe Thiandoum premier cardinal bu église sénégalaise ñu ordonné ko prêtre 18 avril 1949 consacré ko archevêque bu Dakar 20 mai 1962 24 mai 1982 moo ci topp visite officielle Sénégal visite officielle fii ci Sénégal François Mitterrand président de la République française ñëw Sénégal delluwaat Sénégal kon mai 1989 euh, ci occasion bi mu doon amal troisième euh, sommet francophonie 24 mai 1989 troisième sommet ci réew mi euh, réew yi nga xam ni dañuy làkk français partagé 45 délégations di ci bokk bokk na ci ñoom Nouvelle-Angleterre ak Louisiane euh, ci loolu nag euh, président français bii di François Mitterrand décidé annuler dette publique euh, boo xam ni fanweer ak juróomi réew yi nga xam ne ñàkk nañ lool amee nañ ko 24 mai 1998 élection législative parti socialiste di PS am 93 sièges parti démocratique sénégalais PDS am 23 union pour le renouveau démocratique URD am 11 ànd jëf parti africain pour la démocratie et la justice di AJ/PADS am 4 ligue démocratique mouvement pour le parti du travail LDMPT am 3 guléet nag 11 partis politiques ñu représenté leen foofee ca assemblée nationale 24 mai 2014 cérémonie pose première pierre pôle urbain bu Diamniadio njiitu réew mi Euh, jiite woon ko di jamono jooju président Macky Sall pôle urbain bu Diamniadio bokk ci commune yu Diamniadio ñi Sendou ak Sébikotane nekk territoire Carrefour ci zone de transition diggante euh, Dakar ak li des ci réew mi 24 mai 2020 lañ koy jeexalee ci jouru korite la woon El Hadj Oumar Amadou Dem wuy ji boroomam bi mu amee quatre-vingt-quinze ans nekkoon ñaareelu xalif général famille El amadu Dem bu sookoon nekkoon nitu diine baax lool jub ba ñëpp seede ko mu wuutu woon fa magam di wuyoo ci turu Cheikh Oumar Dem jërëjëf oustaz li moo gënoon fës ci éphéméride bi tey. jërëjëf yow itam Mamadou Max baax ñu ngi lay eh, jërëjëfal bu baax di la sant ak gërëm ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne. Euh, moom nga ñu doon euh, dikkal ci ay leeral li nga xam ne moo jotoon a xew ci àddina wërngël këpp euh, ci la 24 mai ñu fàttali ko ci bu baax rek kon aji boo daan yellaahi boobu nga xam ne moom la Seydina Limaamul Mahdi woote woon ca yoof kon ni mu ko waxee la 24 mai la ci atum 1883 foofu la ca Yoff ñuy profité bu baax nag di ci ndokkeel suñu mbokk laayeen yépp moo xam la ko tàmbalee ca Ngor Wakam Almadi Yoff ba jàpp Malika euh, fépp foo xam ne laayeen mi ngi fa ci euh, senegal àddina wërngal këpp ñoom suñu mbokki laayeen yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci bis ni ki tey Amadou Sabar ba ci la Seydina Limaamu waxoon aji boo daa yàllaaki yaa mahsaral jinni wal insi inni rasulullahi ilaykum moom borom aji boo daa yàlla e ci kon mbokk yi ñu ngi gërëm bu baax nag kon ndongo leneen la ca topp nag euh, ñu ngi gërëm bu baax moomu doom wax ba waa jële taxaw moom a fàttali ndongo ka namu naa ko xaat <laughs> ay ca kon leneen la ca topp moo di eh, gëstu bis bi gëstu bi nag tey jii eh, dafa dafa dafa spécial eh, bëgg naa képp koo xam ne daawul déglu rubrique bi nga xam ne moom moo di gëstu bis bi tey jii na jàpp ci yàlla déglu ko parce que gëstu bis bi man mi ko def bi ma ko enregistré ba pare bi ma ko monté ba pare déglu naa ko cinq fois ndax am goo xam ne am na ko sens rawatina euh, tomb yi nga xam ne laal naa ko tey euh, Maxtar euh, bëgg naa kon auditeur ak sax téléspectateur yépp dégloondoo ko attentivement ñu déglu ko RFM gëstu bés bi raditu billahi rabba wa bil islami diina وسلم سلم نبيا ورسولا طوبى طوبى طوبى طوبى طوبى لشخص به sirkul jawaahir fii axbaari sarair ci dénkaane ku tedd ki di borom Tuubaa njaarim di bàyyi Cheikh Saalihu Mbàkke ba tey bokk na ci dénkaaneem yooyu moom Cheikhul Xadim Sëriñ Tuubaa nee na Jaafaru Saadiq nee na am na juróom-ñeent yi ko yoo xam ne suñu borom subaana wa taala yónnente yi la leen jagleel dee leen nattu seen bopp ci ñoom bu ñu nekkee ci yéen ngeen sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala bu baax bu ñu nekkul ci yéen ngeen ñaan suñu borom mu may leen ko bokk na ci jikko yu baax yu tedd yooyu wóolu mu di yaqin doylu muñ sant lewet rafet jikko tabe fiir ak jàmbaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ñu mat fukk ci sama xeet ñoo xam ne ëllëg yomal xiyam suñu borom subhaanahu wa taala da leen di woo ba ñu ñëw mu ne leen mere naa leen lool digal naa leen ngeen dem tàbbi sawara te kenn du ko lijjanti ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ana fukk ñooñu ñan ak ñan la mu ne mag muy njaaloo imaam ju réer kuy saxal naan sàngara kuy ràmbaaj kuy seere ak neen kuy xool ñaari way juróom bëtu mer kuy fase ba noppi di téyewaat kuy atte ci ak jeng ak kudul julli maana ku bàyyi julli du ñu bàyyi mukk ci dénkaane ku tedd ki di borom Tuubaa njarim di bàyyi Seex Saalihu Mbàkke ci silkul jawaay kër Sëriñ Tuubaa na am na ku wax ne ku amul juróom-ñeent du am juróom-ñeent yi may bëggalim ku amul am xel du am gëneel ku amul xam-xam du am tedduk askan ku dul jëf du am tiyaaba ku dul yéene du amuk pay ku amul ak fegu du am diine ku amul jikko ji rafet du amub xarit ku amul ak sax du am xalaat ku amul ak lewet du mën a jiite kenn ku amul tedd nga du am na doomam ne ko yow sama doom boroom xikma yi am nañu juróom-ñeent yoo xam ne ni ñu leen ŋàññe ŋàññewuñu ko lenn bokk na ci yooyu fen naw say jëf ak sa bopp ak def wala wax lu yellul ngir jàq bokk na ci iñaan ak wor ak nay gaawtu ñaaw jikko ba tey bokk na ci li ñu xam ci silkul jawaahir ko tedd ki di boroom Tuubaa njariñ bindal ñu ko ñu leen koy jàngal ngeen di ko déglu ba man koo topp bàyyi Cheikh Sadiko Mbàkke nee na Sufiyaanu Sawri yu nee na fukki yi bokk na ci ci ak béccingal wala ñaawi teggin di ñaanal sa bopp te doo ñaanal say wayjur ak mboolim bépp di jàng alxuraan te doo ko jàng bis bu set dugg te doo fa julli romb ay armeel yu ñu suul ay jullit te nuyu woo leen ñaanal leen itam suñu borom subhaana wa taala mu yërëm bokk na ci itam dugg ci dëkk bu ñuy taxawalee ajuma bisub ajuma te doo fa julli bokk na ci itam borom xam-xam dikk ci barab bi nga nekk wala mu dikk ci dëkk bi nga nekk te siyaare ji woo ko doo jàng ci moom doo ko teral moo xam góor la moo xam jigéen la ñaar ñuy ànd te kenn ci ñoom ñaar du laaj moroomam aw turam ndawlu ak ndawam di dem te sàkkuwul xam-xam ak ki teggin taman ko lool bokk na ci itam lekk ba suur say dëkkandoo xiif te joxoo leen dara ci saw ñam ba tey bokk na ci dénkaane ku tedd ki di borom Touba njërim di bàyyi Cheikh Saliou Mbacké Serigne Touba nee na Kaabul ne na génne na lu mat fukki baat ak ñaar ci tawreet bind leen takk leen ci sama doq mu di sama olos di leen xool bis ba set ñaari yoon bu ci njëkk moo di yow doomu aadama bi bor ragal ab buur li feek sama nguur a ngi des bi ci topp di ñaareel bi moo di yow doomu aadama bi bor ragal wërsëg bu la raw li feek samay dencukaay ñi ngi fees duñu jeex mukk Seydina Umar ibnul Xataab al Faaruq am na ko mu masala ci nit ñu baax ñu ne ko ndax gis nga lenn loo sib ci samay mbir mu ne ko dégg naa ne dangay teg ñaari mburu ci sandap yow Seydina Umar ibnul Xataab am nga itam ñaari mbubb benn bi ngir guddi ba ca des ngir bëccëg mu ne ko ndax gis nga leneen mu ne ko déedéet mu ne ko giñ naa ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñaar yi nga gis ki man duñu amati mukk ci kaw suuf ci kaw suuf lañuy àddoo ci rajo Futurs Médias ngeen di ñu déglu ba mën a am suuf ba mën ku tedd di borom Tuubaa njaarim di bàyyi Cheikh Saliku Mbàkke ci silkul jawaahir ne anas nee na am na waxambaane wu xamatu réyoon lool ay sarax farlu lool ci jaamu yàlla suñu borom tabaraka taala tawat ju metti lool yónni soxnaam ci yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ma ñaanal bu baax suñu borom subhaanahu wa taala mu dimbale ma ba mu ñëwee ci yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama borom kër kat day waaje génn àdduna yónnente yeggee ngeen xool ko te wax loo ko laa ilaha illallah ba ñu àggee ñu xool ko ne ko waxal laa ilaha illallahu mënta wax mu wóor leen ne kii day faatu ñu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dellu su ko gaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam daanne ndax ndayam ak baayam ñu ngi dund ñu ne ko baayam faatu na ndayam moom mag la lool waaye mi ngi dund yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónnee woolu ko mu jàpp ci aw yat daal di dikk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaa yaay alxama mu ne ko man mii day maay ndayam saraxe mu ne ko diggam ak yow nu mu demee mu ne ko man day mere naa ko lool wenn yoon yónent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu tax nga mere koo yaa ji daal di xool ko tedd ka di alayhi salaatu salaam ne ko lenn rek a tax ma mere sama doom yónent bi ne ko lan la mu ne ko ak sa ci RFM Maxtar <laughs> xam naa ñëpp ñu ngi doon xaar euh, résultat boobu nga xam ne moo tax euh, alxama moomu lan moo tax way juróom bu jigéen mere ko ak nan la mujjee ndax faatu na wala faatuwul ak ba faatoo itam ndax tàbbi na àjjana wala déet ak lan la ci yónnente ba wax ak lan la yaayam wax yónnente bi ne ko moo tax ma mere sama doom ko bëgg a xam na nga ñu déglu ci émission yóbbalu jullit bi ñu dëgmal di àjjuma bii di ñëw bu ci yàlla àndee daañu ci kon teg épisode bi nga xam ne moom mooy mottali euh, bu tay bile. ay eh, ci kon mbokk yaakaar naa ni kon euh, pàcc bu njëkk bangook jeex na takk yi kon première partie ñuy nuy bu baax nag suñu mbokki wolof yëpp di leen ñaanal euh, guddig jàmm pël yi ak tukkulóor yi jëm xiir yi séeréer si naaf yo joola joolaa karon yi alon kaaw joolaa yi ca des koti yom ko li ñoom ñoom dee saafuñ soose yi mandim mandinkoolu saraxule yi xaleel la bambara yi ak soninka yi ak mandinka yi yi bonsoir anglais yi good night italiye bonasera arabi masa ul xayri eh, sinwaay wangcang ni haw endoy salamat malam dellu nuyu murid yëpp eh, di waa kër cheikh bamba xaadim rasoul tidiane yi di waa kër cheikh seydi haji malik si xaadir eh, yi di waa kër cheikh abdoul xaadir jaylaani yi di waa kër seydina limaamul laay yi di waa mam abdoulahi ñas canaba canaba di waa maam Amary Ndack Seck waa kër Cheikh Omar Foutiyou Tall salaamualeykum suñu mbokki jàngu bi di catholique yi labbi archevêque yi ba ci njiitu église yi madame Guèye nuyu naa la ay ca kon mbokk yi seen émission yóbbalu jullit moom mooy tàmbali tey jii nag maxtaar émission la ci biir émission yi tey moom émission spéciale la boo xam ne secret yi gën a mag yi gën a yaatu ndax dañu daan ko centré wu rek ci àddina waaye émission tey bii maxtaar dinaa wax nit ki sax nan lay def ba mucc ci mbugaluk bàmmeel dinaa wax nit ki nan lay def mucc ci mbugaluk bàmmeel waaye mucc itam ci tàncuk bàmbeel dinaa wax nit ki itam nan lay def ba yàlla jéggal ko waaye danaa ko wax itam nu muy def ba mucc ci sax yiy lekk ci biir bàmmeel mi nak li duudi fil xabri sax yi nga xam ne bu nit ki faatoo ci biir bàmmeel ñoo koy lekk danaa leen wax naka lay def ba mucc ci ba bu faatoo sax yi duñ ko lekk waaye dinaa leen wax it nan la nit ki di def ba mucc ci yàquk yàquk yàquk yaram loo xam ne buñ la ko defalee wala nga def ko bu soobee suñu borom sa yaram du yàqu te it buñ la suulee incha allahu taala ña la doon suul bala ñoo wane ginnaaw sa texe moom dañ koy daal di bind dafay daal di leer nàññ lépp luy xeeti fitna yi nga xam ne itam mooy am yooyu itam dañ ci mucc ak yeneen i njariñ yu am solo yoo xam ne ci wàllu ubbeeku la ci wàllu wërsëg ak luy tax nga am ngërëmul sa ñaari jur donte sax say wayjur faatu woon nañ ma ba pare te yóbbaale wuñ sa ngërëm maanaam yóbbaale wuñ gërëm la nan ngay def kon ba am seen ngërëm loolu lépp daañu ko waxtaanee kon ci émission tay bi le kon émission tay bi yaakaar naa am na solo ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax tey ji nag maa ngi jël téere boo xam ne ñi ngi ko tuddee mañ Majmahun ni fii fawaa'idi daarayni li cheikh ahmadul xadim kaana lahu bi karamihi baaxil xadim téere bi nga xam ne mooy mañ Majmahun Nurayni nga xam ne moo boole ñaari leer yi muy leeruk àddina ak alaaxira muy saxaadatu daaray ni téere boobale tey moom laa ubbi moom laa fas yéene def émission spéciale boo xam ne mañ Majmahun Nurayni lay doon kon na ko mbokki jullit yépp déglu ndax émission tey bii moom wallaahi amuñu sikk sàkka ci ne dina am solo te it dina am njariñ incha allahu taala yàlla nañ ci yàlla defal tawféex ba niñ koy séentoo ñu am ci lu koy njort ci barke Ahmadul Xadim sëriñ bi mi ngi wax ne yowmal xiyaam am na téeméeri junniy tiit yowmal xiyaam am na téeméeri junniy tiit téeméeri junniy tiit muy mille tiit am na bis ci yowmal xiyaam sëriñ tubaa nee na menn tiit mu ci nekk moo gën a tar moo gën a metti mettitu dee junni yoon mille fois benn tiit bu ci nekk moo gën a metti mettitu dee junni yoon sëriñ tubaa wax ne ku bëgg yàlla suñu borom subhanahu wa taala musal la ca nag nee na deel wax baat yi may bëgg a wax suba gu nekk ak ngoon gu nekk benn yoon mbokk yi ndax dégg li sëriñ bi jiital sëriñ Touba nee na yowmal xiyaam am na téeméeri junniy tiit te menn tiit mu ci nekk moo gën a metti mettitu dee junni yoon mille fois nee na képp koo xam ne nag bëgg na suñu borom musal la ca tiit yooya ca bispenc penc tiitaange yu metti yooya nee na baat yi may bëgg a wax dee ko wax suba gu nekk ak ngoon gu nekk matin et soir fois baat yaa ngi nii ma bëgg a wax bisimilah ngeen déglu ko ngeen enregistré ko man koo déglu ku mën a bind bindal ku mën a jàpp jàppal ngeen man koo mokkal saa su ngeen xëyee wax ko benn yoon waaye bu jant bi soowee itam ngeen wax ko benn yoon bisimilah. mi ngi tàmbulee ci li hammin wa hammin macha allahu li dayxin xasbiyallaahu walikulli balaa in istaxantu billaahi walikulli uhjoobatin subhaanallaahi walikulli shiddatin waraxaa in shukru lillaahi walikulli nihmatin alhamdu lillaahi wali kulli xadaa'in wa xadarin tawakkaltu alallaahi wali kulli sanbin astaxfirullaaha wali kulli musiibatin inna lillaahi wa inna ilayhi raajixoona wali kulli taaxatin wa mahsiyatin laa hawla wala quwata illa billahil aliyil azimi mbokk yi loolu mooy baat yi yaakaar naa déglu ngeen ko yaakaar naa enregistré ngeen ko yaakaar naa ku mën a bind itam bind nga bu ko defee ko ci bëgg ndollent maanaam nga man koo ja man koo jàngaat bu fekkee ko jàng ba mën a liiral boppam maa ngi koy jox tegtal ci téere boobu tudd mañ moo honoré ni bu fekkee ki mënta liir nag na duggaat ci plateforme digitale bu RFM mu di Facebook RFM rajo Sénégal bu ko defee bu demee wala suñu application RFM wala ICFM bu demee dina mën a dégluwaat émission bi attentivement kon loolu itam ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo beneen njariñ bi ci topp mooy képp ku bëgg a gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallama guddik àjjuma buy tëdd na wax lii. maanaam képp koo xam ne bëgg nga sa ñaari bët yii la suñu borom subhaanahu wa taala bindal bëgg nga bala ngay sangoo suuf maanaam bala ngay faatu ñu lay denc bëgg ngaa teg bët yónnente bi gis ko jëxëran ci say bët lii may bëgg a wax képp koo xam ne dem nga guddik ajjuma guddik ajjuma nag mbokk yi buñ ko waxee du tey guddik ajjuma mooy démb ci guddi hier soir mooy alxamis ci guddi mooy guddik ajjuma tey jii di bisub ajjuma bi ci guddi guddik samdi la guddik gaawu la waaye guddik ajjuma mooy alxames ci guddi yaakaar naa gis ngeen suñu mbokk taalibe cheikh yi suñu mbokk taalibe tijaan yi di def xàddaratu guddi ajjuma ñu di ko def alxames ci guddi mooy kon ñu fàttaliku ne guddik ajjuma mooy alxames ci guddi ma tooñati nag journaliste yi des fois da ngay dégg ñu ne guddik ajjuma gi nangam ak nangam te fekk suuru ajjuma bi lañ ci namm wala ñu ne guddik samedi wala guddik àllarba te guddik àllarba boo ko dee wax mooy talaata ci guddi mooy guddik àllarba waaye àllarba ci guddi du guddik àllarba waaye guddik alxames la loola it bëgg naa ñu gën cee ñu gën cee bàyyi xel xëy na bu ndong ka ñëwee toog daañu ci gën a waxtaan ëllëg ak jàmm ba ci yàlla andee léegi nag ne Serigne Touba nee na képp ku bëgg a gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddik ajjuma booy tëdd na nga wax lii may bëgg a wax. ngeen déglu ko bu baaxee ndax ngeen mën koo wax danga koy wax benn yoon dangay wax allahumma inniya asaluka bi xuwatil bi xuwatir rububiyati wa hasamatis samadaniyati wa sadwatil ulohiyati wa hizzatil jabarooti yati wa xidamil fardaaniyati wa xudratil azaliyati an tuzalliya wa tusallim muhammadin wa alihi wa an wajha nabiyika sallallahu taala alayhi wa wasallama Jóob sëriñ Tuubaa nee na képp ku bëgg a gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu dee ko jàng guddik ajjuma booy tëdd muy alxames ci guddi kon loolu itam ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na am na solo du dëgg beneen bi ci dafa wax ne njariñ boo am solo bii mu leen di bëgg a jox nee na moom Sëriñ Tuubaa nee na képp ko am loo ragal képp ko am loo ragal ak lu mu mën di doon moo xam yoon woo jëm ca ragal fa moo xam lekk guñ la jox nga ragal ko moo xam kilifa goo war a dajal te ragal ko moo xam mbir moo war a dugg te ragal ko ak lépp lu mën di doon ci àddina nga di ca soobu te am ca looy ragal ak lu mu mën di doon seexul xadib nee na lii may bëgg a wax day képp ku ko def nee na lépp loo doon ragal ca loole suñu borom dana ko fànq bu deew yoon la lépp lu fa doon musiba danga ci mucc bu dee mbir mooy dugg itam lépp moo xam ab liggéey la moo xam yoon wooy bëgg a sóobu moo xam tukki booy bëgg a def moo xam koy bëgg a jëflanteel moo xam sëy booy bëgg a takk moo xam entreprise booy bëgg ubbi wala business booy bëgg a tàmbuli lu man doon nga am ca looy ragal nee na na nga def lii te soobu ca mbir ma ñu ne ko mbàkke la mu ne da ngay jàng li ilaafi xoreysin juróom-ñaari yoon li ilaafi xoreysin sept fois mu di juróom-ñaari yoon seven muy li ilaafi xoreysin ilaafihim rihlata shitaai wa sayf falyahbudu rabba hadha al bayt alladi attahamahum min joohin wa amanahum min xawfin loolu mooy li ilaa fi qurayshin léegi nag kon moom ngay jàng juróom-ñaari yoon mu di fois benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar waaw four five six seven moom nga koy jàng sept fois juróom-ñaari yoon léegi nag nee na boo noppee nga jàng ñaan gii may bëgg a wax ñaan gi nag sëriñ bi nee na benn yoon nga koy jàng nga jàng ñaan gi be jàng ñaan gii benn yoon boo jàngee juróom-ñaari li ilaaf yi ba noppi jàngal ñaan gi may bëgg a wax benn yoon ñaan gi mi ngi tàmbulee ci allahumma innaka aaminun min kulli shay'in wa kullu shay'in xaaifun minka fa bi amnika min kulli shay'in wa xawfi kulli shay'in minka am minni mimma axaafu innaka halaa kulli shay'in xadiirun nee na boo ko waxee rek yàlla suñu borom dana la may kóolute ci lépp man sax maa fa nekkoon di settee nan ab liggéeya nangam ak nangam waaye sëriñ bi moom dane boo ko waxee nee na suñu borom dina la defal kóolute ci lépp loo xam ni loo mën a dëgmal la ba lépp loo ca doon ragal incha allahu taala loolu yi dina la wan ginnaaw mbokk beneen bi ci topp. sëriñ Touba dafa wax ne ku bëgg a dabaatal topp sa ñaari way jur gannaaw bañu ñu faatoo mbokk yi topp ñaari way jur day farata la ndax alquran moo ne ñu wahbudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan alxuraan ne na jaamu leen suñu boroom da ngeen bañ koo bokkaale ak dara waaye ngeen topp te rafetal seen diggante ak seen ñaari waajur wax na ko fu bëree bëri wax day rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni dem na sax balay wax jikko ji nga war a dunde ak sa waajur ak ni nga war a doxee ak moom ak la nga war a moytu imma yablughanna hindakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taxul lahuma offin wala tanharhuma waaye nag ndigal li mooy waxul la lahuma xawlan kariman na ngay moytu kàddu gu ñaaw wala kàddu gu dëgër wala kàddu gu jóg ci sa kanamu jur waaye na ngay wax ak moom wax ju nooy wax ju tedd wax ju rafet exemple bi ma leen ci nettali ci histoire ku tedd ki di seexul xaddiim moom sëriñ Touba euh, dafa am benn bis sàmbalaw bi dikkoon seet si woon sëriñ Mamar Anta Sali Mbàkke mi nga xam ne mooy waajuru ku tedd ki bi sàmbalaw bi dikkee daal di nuyu sëriñ Mor Anta Sali ba noppi ne ko sama soxlakat lenn la tey mooy dama bëggoon sa doom jiitu tudd Ahmadou bàmba booba ay borom Touba ak xaadim rasuul ak sëñ Touba booba yooyu yëpp dikkagul ndax booba sancagul Touba wooteegul yoonu murit booba ca njëlbéen ga la moom booba sëriñ bi ndaw la ci saayir ndax sëriñ Touba mas sa doon ndaw waxin la mu ne ko damaa bëggoon sa doom ji tudd Ahmadou Bamba Mbàkke kat damaa bëggoon mu ñëw ànd ak man dem fa man bu ko defee mu di ma dimbale ci sama mbiri diine ma di ko dimbale ci mbiri àddinaam mooy ni nga mel ak sama nijaay Lat Joor daal noonu laa bëggoon mu ñëw mel ko ak man bi mu ko waxee sëriñ Mor Anta Sali sëriñ Mamar Anta itam tegu ca dara lu dul yónnee woolu ko tedd ki bi mu wooloo sëriñ bu mag bi sëriñ bi ñëw mu ne ko Euh, sàmbalaw bi mii kat dafa wax ne nangam ak nangam ak nangam nee na dafa bëggoon daal nga jóg dama ànd ak moom boo demee di ko dimbali ci diineem mu di la dimbali ci sa mbiri àddina comme ni ma mel ak nijaayam Lat Joor sëriñ bi gàntal na gàntal na gàntal na officiellement waaye nag ci kanamu woy juram sàmmonte ak teggin yi war a dox digganteem ak woy juram tax na sëriñ bi waxul sàmbalaw bi ci kanam sëriñ war ant sali ne ko déw ma wala bañ naa wala du ma dem déedéet dafa daal di sëgg jàtt jatt awloosam wormaal sëriñ war ant sali ne ko baax na mbàkke ba mu génn lii rek la ca teg néewu ko damaa bañ néewu ko du ma dem néewu ko duma ko def waaye xam na ne naru koo def te woy juróom it jox ko ndigalul mu def ko maanaam da koo jottali rek ne ko moom kat dafa bëgg nangam waaye néewu ko digal naa la nga dem def nangam loola it lu mat bàyyi xel la woy juróom néewu ko jox naa la ndigal nga dem ànd ak Samba bi dana ko Samba Laobé mii nee na dafa bëgg nangam ak nangam ak nangam waaye Serigne Touba ci ay tegginam mu daal di sëgg daan ne ko baax na ba mu génn daal di dellu ca lam nekkoon bi Samba bi génnee fekk sëriñ bi mu toog ci ab der di jàpp sëriñ bi daal di wàcc der bi jox ko ngir moo daarante ak moom maanaam ngir worma ji nga xam ne moom la suñu borom digle niti àddina yeeg niti diine yi ñu jokkalante ko. waaye sàmbalaw bi it nanguut a toog ca kaw der bi ndax wormaal sëriñ bi mu tàmbali di ko wax la mu waxoon maanaam ci ginnaaw woy juróom nga xam ne bi muy waxaat sëriñ bi lii moom booba sëñ Mor Anta Sali fekkewu ko moog sëriñ Touba la ak mbooloo ma bi mu waxee laataa muy daanee sëñ Touba ne ko xalaatumaa dem la maanaam lam la la nga xam ne bëggoon na ko tam mënu koo wax ngir worma ci kanam woy juróom loolu rek laa ci doon jàngale ci kanam woy juróom sëñ Mor Anta Sali léegi nag mën na koo wax ndax woy juróom teewatul mu ne ko xalaatumaa dem di fi bàyyi ñi nga xam ne xam lu yàlla ak wut xam-xam ak diine lislaam ak defar seeni jikko moo leen tax jóg may dem di leen fi bàyyi Samba ne ko ah loolu de moom mënuma ci dara ne ko nangul naa la ko daan ko lii aw fasanaaru góor la maa la ko may maanaam ngir eh, xëy na kàddu yi dëgg yooyu ko sëriñ bi wax mu yëkkati fasanaaru góor may ko ko sëriñ bi daal di koy jël ngir ngir rafetal bi sàmbalaw bi di dem fekk am na ñett ñu mu àndaloon sëriñ bi ne ko ñett ñett ci sa ñi ànd ak yow sa dag yi ne ko diw sàngam ak diw sàngam ak diw sàngam te fekk booba ñooñu sëriñ bi xamu leen maanaam xamu leen ci saayir waaye dafa jaar ci seeni tur ne ko ñett ñi moom dama leen a soxla bàyyil ma leen fii ba ci kanam Samba jox leen digal ne leen man ngeen a toog ñu daal di toog bi buur bi demee sëriñ bi daal ne fas wi ku ko jaay lu ku ko jaay ñaata nga ci war a mën a am ñu ne ko war naa mën a am ñetti téeméeri dërëm ñetti téeméeri dërëmi sëriñ bi ne nañ dem jaayal ma ko ñu jaay ko ñetti téeméer ñett ñam téye woon kenn ku nekk mu jox la ab téeméer fekk la tax mu defal leen ko mooy ndekete kenn ku nekk ci ñoom buur bi dalaa yoree loon borob téeméer te ñemewu koo fayeeku te bañ koy le booba sëñ bi fekkewu ko te li may wax nii booba yoonu mu murid taxawagul booba sëriñ bi ndaw la ci saayir waaye suñu borom xamal ko ko mu téye leen kenn ku nekk ba mu la joxee ab téeméer nga sant ca lool sant sëriñ bi gërëm ko mu ne ko maa la fayal bor bi nga xam ne moom la la buur bi yoree loon maanaam yéemu gañ yéemu mooy nu ko sëriñ bi yëgee waaw loolu nag moom bokk na ci mayi sëriñ bi ak xar baaxi ku tedd ki te booba sax nag yoonu murit taxawagul booba woy juróom mi ngi fi ginnaaw woy juróom ci la soog a woote yoonu murit ca Mbàkke Kajoor moo tax sëriñ bi wax ne képp ku bag bëgg a dabaatal topp sa ñaari wayjur gannaaw bu ñu faatoo ba noppi te amoo woon seen gërëm ñu tëkk woon la soog a faatu wala ñu mere woon la soog a faatu wala amoo woon seen gërëm ba ñu faatu nga bëgg a am seen gërëm sëñ Touba nee lii may bëgg a wax boo ko defee di nga am seen gërëm ci lu leer naññ te di nga ko gis ci say mbir di nga ko yëg ci saw doxalin di nga ko yëg ci say affaire dinga nga ko yëg ci sa wërsëg waaye danga ko yëg ci sa xol yëg ko ci sa yaram yëg ko ci sa lépp ne say wayjur kat gërëm nañ la fa ñu nekk donte faatu nañ bu yàgg. mu wax ne kon boo ko bëggee da ngay julli ñaari rakkaxa guddik alxames c'est-à-dire ba ci guddi da ngay julli ñaari rakkaxa mercredi nuit mooy ba ci guddi mu di guddi alxames rakkaxa bu ci nekk nga jàng ca faatiha benn yoon mu di alhamdu ba ca wala daaliina amin nga teg ca ayatul kursi ak lixlaas ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk juróomi yoon mu di cinq fois faatiha ngay jàng benn yoon boo noppee nga teg ca ayatul kursi benn eh, juróomi yoon tek ca suratul lixlaas juróom yoon teg sooratul sóoratul falaq juróomi yoon tekke ca sóoratul naasi moom itam juróomi yoon boo noppee nga jéggalu yàlla suñu borom ñaari rakkaay yëpp loolu nga ciy jàng ñaari rakkaay yëpp bu ci nekk ginnaaw faatiha loolu nga ciy jàng boo noppee nga jéggalu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala fukki yoon ak juróom maanaam astaghfirullaha nga def ko 15 fois mu di fukki yoon ak juróom boo noppee nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi fukki yoon ak juróom maanaam salaatu ala nabi gooman nga def ko 15 fois mu di fukki yoon ak juróom sëriñ Tuubaa nee boo noppee nga jox ko addiya sa ñaari wayjur nee na loolu day képp ku ko def mel nga ne ku topp sa ñaari way jur nga leen waroon a toppee ba ba ñu gërëm la allahu akbar nee na képp ku ko def day mel na ne toppoon nga sa ñaari wayjur nee na ba ñu gërëm la te loolu yi di nga ko yëg ci sa lépp donte sax nag dañ laa mere woon beneen bi ci topp nee na ku julli guddik àjjuma ñaari rakkaxa guddik ajjuma wax naa ko léegi mooy alxames ci guddi nee nga julli ci ñaari rakkaxa rakkaxa bu ci nekk nga jàng ca fatiha benn yoon isaa sulsilati lardu silsaalaha wa axrajati lardu asxaalaha wa xaala linsaanu maalaha yowma isin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxeelaha yowma isin yasduru naasu astaatan li yaraw axmaalahum fa man yaxmal misqaala sarratin xayran yarahu wa man yaxmal misqaala sarratin sarran yarahu nee na nga jàng ko fukki yoon ak juróom mu di quinze fois nee na loolu day képp ku ko def benn yoon rekk ci sa dund yàlla suñu borom dina la musal ci tàncug bàmmeel ak xatam te mel na ne wàcce nga fukki kaamil ak juróom yu ñu nangu quinze kaamilu alxuraan yu ñu nangu Eh, ci kon xam naa dañuy dellu rédaction te dellu siwaat bu ko defee bu ma ñëwaatee dinaa ko leeralaat soog a jàll ci beneen eh, Sampo nduur ma nga ne taxaw ak i kayitam war a ñëw léegi tënkal leen xibaar yi ci kàllaamay farañse lay doon mu di tubaab eh, bu noppee nag ma daal di wéyal ak yéen ci li nga xam ne moom moo di ñaareelu xaaj bi di xaaj bu mujj bi ci seen émission yóbbalu jullit ñu dem te ñëw. لقد نال من مسن المقافى محمدا ياكي وليدا ختمدا Done. Samedi 25 mai 2024. Euh, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash Jean-Paul Dourmatarson. Un agent de constatation des douanes en service à la brigade de Kumpentum s'est donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Il s'agit de Béram Diba, âgé de 36 ans. La scène s'est produite chez lui après sa descente de service. La gendarmerie a ouvert une enquête, pas poussé le galop. Aussi bien dans le fond que dans la forme, cet acte du douanier Biram Djiba, âgé de 36 ans, a étonné plus d'un dans la commune de Koupentoum où il était en service. De sources proches de l'enquête, c'est à sa descente de garde le jour des faits aux environs de 13 heures qu'il est rentré chez lui et s'est saisi de son arme chargée pour se loger une balle dans la tête. C'est son corps sans vie qui sera retrouvé étalé dans une mare de sang. Dans la foulée, la gendarmerie a dépêché une équipe sur place aux fins de constatation. Les éléments enquêteurs ont constaté l'évidence des faits. L'agent de constatation des douanes s'était bien tiré une balle dans sa tête avec son arme de dotation, un pistolet automatique. Par la suite, une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes du drame. À ce stade, il n'y aurait de lien avec le contexte professionnel, révèlent nos sources. Tambacounda, Pape suite à l'effondrement d'un bâtiment qui abrite un restaurant, à en croire le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, avec le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Il n'y aura pas de règlement de compte, mais Des suites judiciaires seront données au rapport des organes de contrôle selon le ministre de la Justice qui a accordé une interview exclusive à l'APS. Ousmane Gagne informe que le gouvernement est très avancé dans la rédaction du texte sur les lanceurs d'alerte, mais dans cet entretien de 12 minutes, le garde des Sceaux n'a pas évoqué le retard de la publication des rapports de l'IGE et les affaires Badiabahate et Imam Alun Badara Ndao. Sur Birahim Sek, coordonnateur du Forum civil, écrit au président Bassirou Diomaye Faye en ces termes. La bonne gouvernance requiert de rendre public le décret portant répartition des services entre la présidence, la primature et les ministères pour l'information des citoyens et le suivi efficace des activités du gouvernement. Les évêques de la province ecclésiastique de Dakar, préoccupés par la cherté du coût de la vie et le chômage des jeunes, Ils invitent le gouvernement à y apporter des solutions. C'était en marge de leur deuxième session ordinaire de l'année pastorale au foyer de charité du Cap des Biches. il y avait donc le monseigneur Jean-Pierre Bassène et euh, Augustin Chao, secrétaire général de la conférence épiscopale, qui ont porté leur parole. minutes sur la RFM. Merci d'avoir suivi ce flash. C'était Jean-Paul Nour en compagnie de Matar Je vous laisse avec Oustas Mamorbaké, Yoboul Julit, début de journée dans l'amour. Merci infiniment de votre fidélité renouvelée à la RFM, la radio de toute l'actualité.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 ñu leen di dig daje ajuma ak jàmm yaqini ila aljannati ma laysa yuxmadu يقيني إلى الجنات ما ليس يخمد رسول كريم بيتنا سار أحمد jërëjëf Makhtar Sambou jërëjëf it Sampol Ndour jërëjëf it mbokki auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu ci rajo Futurs Médias RFM 94 point 0 kon ci seen jataay bu am solo bi nga xam ne yéen ñi ñu soog a dab sax ñu ngi leen koy fàttali seen émission yóbbalu jullit ngeen di déglu fii ci RFM 94 point 0 ci ndakaaru Serigne Mamor Mbacke kennal Serigne tubaa ci micro bi Makhtar Samb ci wàllu xarale gi feggoo ak Diop RFM yéen askan wi. ci euh, déglu bi ca kon gannaaw bu ñu gërëmee waa rédaction kon ci euh, kàddug Sampol Ndour wala boog ci taxawaayu Sampol Ndour kon ñu daal di wéy rek euh, ci pàcc bu mujj bi nga xam ne mooy seen émission yóbbalu jël niki tey ci kanam tuuti kon daa ñu leen ubbil téléphone bi ci 88 628 14 14 wala 00 221 33 849 16 40 ci kanam tuuti lay doon. E ci kon mbokk yi ma fàttali njëriñ bi ma tëjee woon léegi laataa may jóg dama leen doon wax ni Serigne Touba wax na ci mañ moo honoré ni ne lii de képp koo xam ne def nga ko suñu boroom dana la musal ci tàncug bàmmeel aku xatam te mel nga ne ko wàcce kaamilu alxuraan fukki yoon ak juróom yu ñu nangu mbokk yi tàncug bàmmeel ku ko xam dey danga góor góorlu ba lépp lu la ciy musal nga di ca xëy di ca gont sëriñ Sàmba yi radiyallahu anhu wax na ne nit ki bu faatoo bañ dugal ko ci biir bàmmeelam nee na kuusub penku ak kuusub sow maanaam wetuk ndeyjoor ak wetuk càmmooñ wala wetuk penku ak wetuk sow maanaam ñaari wet yi yi nga xam ne ñoo la ñoo la ñoo la ñoo la séq na danañu tànc nit ki danañu ko tànc ba meew mi njëkk a nàmpe woon ci waajuram ba mu juddoo meew ma day génnaat mbokk yi kon tànc googu doy na waar ak loo mën a dund ci at nag dama koy wax dama koy bañ a wax ngeen jàpp ne ab liir a tax may wax donte dund nga téeméeri at wala lu ko ëpp wala nga dund junniy at buñ la dugalee ci biir suuf kuusub penk ak kuusub sow dana la tànc naj la ba meew mi nga njëkk a nàmpe ci sa wayjur wu jigéen sa yaay ba nga juddoo meew mooma sax dina génnaat rawatina kon li nga lekkaat ci diggante bi mbokk kon tànc ga metti na ndeysaan daan wax ni guddi gi njëkk ci bàmmeel dara melul ni moom dara dara dara melul ni moom amul dara lu mel ni moom ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faaw nga jaare ca mbokk yi xoola àdduna nit ki guddi ga ko jiitu ndeysaan ma nga tëdd ca lalam bu nooy ba yóotu télécommandam taal climatiseur wala mu taal ventilateur fay ab làmpam yuutu télécommande am taal télévision am fas yéenee seetaan jël téléphone portable am di manipuler nee na day xaar nelaw ndeysaan ci guddi gi mi ngi ci jàmmam dara méttiwu ko ndekete guddi ga ca topp ci waxtu wii mu jële commande bi di taal kilim bi ndekete guddi ga cay topp ca waxtu tembe mi ngi koy fekk ci biir suuf te pourtant xamu ci dara ndekete guddi googu muy guddeem gu mujj ci kaw suuf ndeketi guddi googu bu fanaanee bu xëyee du yendu wala bu yendoo itam du fanaan ndekete bëccëg booba mooy waajal nan suba nangam laa bëgg añi suba day bëgg naa ndékki ndékki lu dëgër parce que damay waajal programme nangam wala suba day tukki bii may waajal ndeysaan yàlla dogal na ne bëccëgam booba mooy bëccëgam bu mujj te dara mettiwu ko dara jotu ko te pourtant xamu ci dara mbokk yi yàll nañu yàlla sàmm yàll nañu yàlla aar yàlla nañu yàlla may mujj gu rafet waaye yàll nañu yàlla may fan wu gudd lool te ànd ak wér gi yaram yàll nañu yàlla bàyyi ñun ñëpp ñuy dund ba ca kanam a kanam a kanam yàll nañu yàlla musal ci deegu ñaaw ak deegu betti yàlla ñu ci yàlla musal waaw moo tax mbokk yi lépp looy def na rafet yaa ngi tëkku nit naan ko dinaa la yàq dinaa yàq sa àdduna dinaa la toroxal bala nga am jàmm dina yàgg ndeysaan ndekete mbokk mooma nakk yañ lay nakkaal ca sa dëcc bokk na ca ñay yenu bool ya di séddale te pourtant yaa ngi koy tëkku mbokk yi yaa ngi tëkku nit ngir toroxal ko yaa ngi tëkku nit ngir xañ ko jàmm yaa ngi tëkku nit ngir yàq àddunaam yaa ngi tëkku nit ngir faat bakkanam mbokk yi te ndekete kii ngay tëkku pax mi nga xam ne ci lañ la war a suul ak sa juróom-ñaari meetari perkaal ndekete kii moo koy gas mbokk yi yaa ngi toroxal doomu aadama yaa ngi xas nit yaa ngi saaga nit yaa ngi koy tëkku nga gis ko naan dinaa détruire sa àdduna dinaa yàq sa àdduna bala ngaa am jàmm nit taxaw ko ne sa àdduna dinaa ko yàqu yaxeet dootoo jarate dara ci àddina yow sa àddina jeex na ndekete mbokk yi kookii ngay tëkku dana tiim sa bàmmeel lu jege téeméeri ndax yow leen nga faatu te moom day dund ba ca kanam mbokk yi yàlla waxul kenn dara yàlla noppi na ci lépp bu fekkee nag yàlla daf laa nattu xamoo lii xamoo ci dara yàlla nattu la ump la lépp yàlla nattu la nëbb la lépp yàlla nattu la xamoo kañ la xamoo fan la xamoo naka la mbokk yi lépp loo nekk na rafet mas naa am ku ñëw ci sëriñ Touba radiyallahu anhu mu ne ko damaa bëgg a xam ku jëm àjjana ak ku jëm sawar sëñ Touba ne ko aka yomba xam mu ne ko mbàkkee ci naka mu ne ko jëpp jëf joo xam ne yaa ngi ci te bu dee woon asalaamu aleykum nga ne ko wa aleykum salaam bismillah sëriñ Tuubaa nee na yoonu àjjana ngoog waaye nee na jëpp jëf joo xam ne yaa ngi ci te bu dee woon asalaamu aleykum nga ne ko may ma ma defaru jëkkaguma sëriñ Tuubaa nee na yoonu sawaraa ngoog ak a yomba xam mbokk yi ku bëgg xam àjjana nga jëm wala sawara nga jëm xoolal say jëf bu dee yaa ngi jëf-jëf yi waa àjjana na la wóor ne àjjana nga jëm bu dee yaa ngi jëf-jëf waa sawara na la wóor ne sawara nga jëm mbokk yi dee miñ ci suñ kanam di ñu dàq tawar jot yàlla na yeex mbokk yi àddunaa suñ kanam ñu koy dàq te mënuñu koo jot mukk ci àdduna alxuraan nee na laa taatiikumoo illaa baxtatan nee na dee du ñëw mbukk lu dul ne daf laa bett waaye la ci gën a yéeme mooy walaw kuntum fii buroojin musayyada nee na dee bu xasee bay ñëw nee na dara du ko téye foo man di ne mu fekk la fa foo dugg lu mu ruqi-ruqi lu mu bëri bëri sécurité nee na dee ñëw fekk si la mbokk yi président de la république dee na ci àdduna bu yàggutoo yéen a ngi dégg information boobu ca ca ca ca Iran mbokk yi président de la république ak sécurité bi mu am boo jógoon bëgg a yegg ca moom doo yegg ak koo mën a doon ak loo mën a yor mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ko istuwaaru Moustapha ma nga xam ne moom la ñu njëkk a àtte ci peine de mort ndax ñu ne daa bëggoon a boo daa bëggoon a rey Léopold Sédar Senghor yeggul ñu faat ko lañ ko tuumaal nag allahu taala ahlam yàlla rek a xam yal na yàlla sàmm ak njabootam te aar leen te xaare ko ci àjjana yi gën a kowe ndax ab jullit la yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko mbokk yi nga xool président de la république li ko wër ci sécurité waa BIP ñi ngi nii wër la kenn mënu leen a bëtt ndax seen doole ak seenu xereñ waa seen ñi ngi nii wër kenn mënu leen a bëtt yegg sa ci yow ndax seen xarañte ak seen seen force seen doole gendarmerie nga la wër sa palais police nga la wër alentour bi fépp armée baa ngi ci sa loxo force spéciale ñëpp a ngi la wër amul benn doomu aadama bu am xereñteefu yegsi ci yow ma a faat sa bakkan mbokk yi malakul mawti moomu mooy jóg bëtt police bëtt gendarmerie bëtt armée bëtt seyiseen bëtt bip bëtt garde présidentielle yi ñëw fekk la yow président bi nga toog mu rocc sa ruu nga faatu sedd guy lu médecin xereñ xereñ lu sab docteur aay aay yàllante woon docteur ba nekk maison balaas di la faj mënu ci dara dem nga ba pare te dootoo ñëw allez sans retour mbokk yi ndekam bis boobu jombul kenn ku ko xalaatul nag defal lu la neex tooñal ku la neex xasal ku la neex saagaal ku la neex yàqal adduna yi ku la neex waaye bis ñu la takkee takk say tànk ba mu dëgër takk say loxo ba mu dëgër sa bakkan yii nga doon nooyee nga xam ne boo tëgg tëddee fu xat sax wala tëdd ci am néeg suñu mbokk yi ci prison bi prison rëbës bii ci suñ ginnaaw ñu ngi may dégg ña nekk kam manuel camp pénal kasob Thiès mag kasob Tamba kasob Saint-Louis kasob Diourbel kasob Mbacké kasob feneen ak feneen prison bu man di nekk nga toog ci xataay bi mu metti lool nga bëgg a noyyi daanaka doo mën a noyyi noyyi bu baax ndaxub xataay ca paquetage ba mbokk yi bis bii tey sa bakkan yi nga doon nooyee nga xam ne ku ko téye 30 secondes nga ne ko tell mu jaaxaan tey ay ay ay wëteen ay coton lañ ciy lañ ci lañ ciy saañ ndax xam nañ ne suufa ci suufa pare ngir dugg ci bu masaana ngelaw poussière bi jóg ndeysaan nga takk sa mask takk sa masque bu seer bu ñu waxee nga ne poussière bi dafa bëri maa ngi sëqat sama bakkan yi dafa sansible dama asma dama allergie quoi dama gaaw a soj poussière bi c'est quoi ndey saan ñàngal dara du la takk tey sa bakkan yooyu suufa ci solo ba fees dell te dootu ci génn mbokk yi bakkan yooyu dootul nooyi nga defar saw yaram bam jekk fu diwukaay gën a seere nga jënd fu diwukaay gën a baaxee nga jënd mu jaral la nga dem ba bitim réew ngir jënd diwukaay boo def ci sa yaram bu ñu diwkat ay diwoom dafa baax lool lu mën a jar nga dem jënd di diw sa yaram saw yaram di leer saw yaram di rafet saw yaram di belli ndeysaan bu la nit rombee ab doxam xaw sax ay dàllam sànni la suuf nga xolook moom xoola yaa ngi may taqal suuf siwilisewoo ko quoi ah. nangam ak nangam dal ci kawam làkk koy tubaab yuuxu ko saaga ko ndax lan daf laa xëpp suuf ab oto romb la cim ndox tànqal lam ndox mbokk yi nga yuuxu ko saaga ko wax ko lu ñaaw tey fii nga tëdd dama jëlale suuf di la takk ngay faxas waaye suufa féete fépp ci kaw ak ci suuf ndeyjoor ak càmmooñ fépp suufa la fa féete foo làmp suuf ngay daj mbokk yi ndox mu salte mi nga doon bañ ko la ko takkal ci kaw suuf tey jii ay saxala wër di lekk sa yaram wi fu ne parti ba nga gënoon a fonk ci sa yaram di ko diw ak di ko neng nengal foofa la sax yee di tàmbulee sax yi nga xam ne boo leen masaana teg bët donte ñu la sam xel teey kër goo mës a dugg gis faw sax mu jaral la nga toxoo ca kër ga ndax lan dangaa seexlu sama yaram dafa sensible sax yi mbokk mi sa yaram wu rafet wii te nooy tey wërsëgu sax yi la sax yee koy lekk ba mu jeex tàkk bàyyi fa sa yeex mbokk yi nit bu faatoo ba dugg ci biir bàmmeelam ñetti fan yaramam décomposé wu même buñ ko génnewaatoon ci bàmmeelam muriwaat ko ba mu jekk génnewaat aw yaramam buñ ko wanee yaay ji yaayam ji ko jur wala doomam ji mu juróon mënta wax ne kii sama lii la wala sama lee la parce que dootuñu la xàmmee ndax dangaa déformé wu mbokk yi ay fan yu néew ay weer yu néew sa yàpp yaram jeex na seey na sa yax fa des ñu teg ci ay at sa yax day seey ba jeex takk amatoo existé la nga gënoon a bañ ci àddina day am la nga gënoon a bëgg mënatoo ko am mbokk yi bis boobu ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faw nga jaare ca moo tax nag boo leen di néewal yii ñu leen di wax ne la dana fa musle waaye toog rek luy maye xaalis luy tax ma am wërsëg luy tax ma am succès luy tax ñu may coow luy tax ma am bës nga focus ci rek fàtte nga sa bàmmeel fàtte yowmal xiyam fàtte bis pénc te léegi mu ñëw bientôt xadan incha allah ëllëg rek nga war a tase ak moom yàlla na yeex ci ñun ak ci yéen ñiy déglu ak sax ñi dégguwul ak bépp jullit moo tax kon lépp lu la cay musal dee ci xëy di ci gont moo tax lii ma wax léegi bëgg naa ngeen dem fonki ko ndax xam na solo waaw ngeen bàyyi xel nag moytu yi nga xam ne yu xaraam la luy tax ñu di la mbugal mbugalug yàlla am na de boroom xam-xam yi dey nee nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yo nee na ci biir bàmmeel nee na kenn ku nekk yàlla suñu borom dana wéet ak yow ba nga naan ko yàlla xanaa man rek nga bind xanaa bindoo ñeneen dem ca ndax wéetaay bu metti bu tar mbokk yi bàmmeel lëndëm na këriis nee nañ lëndëm nga àgg na ci lëndëm goo xam ne dangay ngay làmb di ko daj da koy tibb lëndëm gu lëndëm bañ koy tibb lëndëm googu lëndëm na bàmmeel lëndëm na xat na tàng na bàyyi leen meesu mbëggalug bàmmee rek la lay jural bàyyi leen pose ay xef bàyyi leen pose ay vee bàyyi leen li ngeen di bind ci seen yaram yi bàyyi leen xeesal te pourtant day bàkkaar yi yépp bàkkaar la waaye dafa am bu ci gën a tiitlu bu ci gën a raglu xam nga jóob ki meesu bu faatu waale it mën nañoo dagg mees yi bala ñu koy suul ki pose ay xef mën nañ koo ci bala ñu koy suul ki def ay wee mën nañ koo dini bala ñu koy suul waaye mbokk yi ki xeesal aw yaramam mbokk yi sa xeesal bii li muy xaraam-xaraam li ko yàlla di bañ-bañ moom lañ lay suulaale ci biir bàmmeel yow koy yombalal nga sax yi seenub liggéey malheureusement mbokk yi <laughs> ka gënoon a taaru rafet na ki nga xamoon ci koñ bi mu xeesoon weex tàll ba inspiré la ci xeesal tey boo sullee bàmmeelam ay yax képp nga fay fekk ana xeesal ba ana yaram wa mu leer la ne fii ngay mujj yow nga dugg ci armeel yi xool gis bàmmeel yi ñu bind soxna diw sàngam 32 ans faatu na 1950 soxna diw sàngam 27 ans 29 ans 35 faatu na 1930 nga xool yow lim tëdd ci kaw suuf ak a yàgg te boobu ba tey mi ngi tëdd te mënta jóg yow nga wala xaraat yow ci sa bopp ñaata at nga war a tëdd ci biir suuf nit ñi continuer di dox ci kaw suuf ak a bëri. loo fekkee wutoon ci li passé waaye ak a bëri loo war a wuute ci la war a xew ci àddina ak bëri loo ci war a wuute loo xam ne doo ko fekke mukk ni nga xam ne ñii tëdd bëri na lu xew seen ginnaaw fekke wuñ ko yow itam dina am lu bëri loo xam ne dina xew te doo ko fekke yéen ñi ci internet bi yéen ñi ci réseaux sociaux yi ana mbay sàppar sàppar yàlla na ko yàlla yërëm jóob ana mbay ana mbay sàppar sàppar ca xorom sa doonoon ku bëri jàmm foo ko gis reetaan foo ko gis ndeysaan bég moom ci boppam mu mu téewoon àddina amoon succès ñëpp xam ko ñëpp doon bég ci moom ku ne bëgg koo xëcc taf ci sa wet moom bay sàppar sàppar waa ku ne ko woon atum 2024 dina fekk nga am nangami at ci biir suuf ndax dana ko gëm dugal ci tiktok bi ba tey kontam ba ma nga fa vidéo ba mujj dugal ba tey boo demee fekk ko fa du ma sa effacé wu te li ci gën a doy waar mooy beneen vidéo du ca dugaat ndax kot ba moom rek moo ko xamoon te dem na kenn amatu ci accès kon bu fa dugalu woon lu baax fuñ koy waxee ji waaye heureusement doo fa fekk lu bon doo fa fekk ku summeeku wala doo ko fekk muy saaga mbokk yi yow mi yor sab compte tiktok wala nga yor sa compte Facebook di ci dugal ay saaga di taf ay nit di leen xas di leen wax lu bon di leen saaga bis ñëw nga war a faatu sa compte bi kenn xamul moo de dépasse bi yow rek yaa ko xam tey yaa ngi ci biir bàmmeel vidéo yaa nga des di tasaaroo bàkkaar ba di la fekk fa nga tëdd saaga yaa ngay wéy xas yaa ngay wéy yàqante baa ngay wéy lu bon yaa ngay wéy ñaata doomu aadama ñoo war a judduwaat sa ginnaaw nga war leen inspiré ci sa bon ci lu bon parce que vidéo yi lu bon li ba tey mi ngi ci internet bi dootul effacé wu te yow sa yax sax seey na sa jëf moo fa des sa ruu ña ngi koy mbugal ndax li nga bàyyi sa ginnaaw ndax amoo mukk mujj gu rafet mbokk mi yow mii di ma déglu duggal ci sa compte TikTok duggal ci sa page Facebook duggal ci sa YouTube bépp vidéo bu fa nekk ci lu bon nga yàq deru nit wala nga xas nit wala nga détruire nit wala nga def ko lu bon rikk waaye wax jii ma la wax nga xam ne du sama waxi bopp duma ma ci dara man ak yéen a ci bokk yem wax jii nga dégg na tax nga dugg ca supprimer bépp vidéo bu bon bu fa nekk ndax jàppal ne faatoo gi nii ci sa kanam teg na la loxo ba noppi xëcc la taf ci boppam dog nga ci des comme xamoo kañ la lay xëcc nag fexeel ba bu lay xëcc la ngay bàyyi sa ginnaaw na doon lu rafet mbokk yi lii mënuma koon a ñàkk a wax ndax ci bunt boobu lañu toll yàll nañu yàlla jéggal yàll nañu yàlla yërëm yàll nañu yàlla suturaal yàll nañu yàlla sàmm ñi gënoon a siiw ci àddina ñi ëppoon succès ñi gënoon a fan ñi nga xam ne mbedd muñ masaan a génn mu fees dell fuñ masaana woote ñëpp teew ndeysaan ana ndéem si yàlla sa coon sekk cey ku ko laajoon ne ko lan mooy say procès àddina dana la tegal procès yu dul jeex amul mébét yu bari doon xalaat desaat ci àdduna dundaat lu bari ngir réaliser ay mébétam moom coon sekk mooma suñu borom xëy xëy ne ko digg bi agsi na la mu doon siiw siiw ak li ko la ko nit ña doon bëgg-bëgg ak succès ba mu doon am ak li mu amoon ciy soppe yépp mënu koo téye faw day dem yàlla ne ko boo demee ab diir sa soxna dalay fekk si du yàgg ne ko diir bu gàttit dinaa yebal sa doom mu fekk si la doonte ndaw la kan moo ciy topp ñan ñoo ciy topp ñun ñoo ciy topp yàlla na yeex comme xam nga ne dina am te adduna bii lépp loo fiy xëccu fii la yem bu doon sax lii ngay lijjanti boo demee àllaaxira maanaam da nga koy continuer business bi nga nekkoon dafay continé wala sa paas bii nga yoroon di ko administrer boo demee ca bàmmeel bi dañ lay joxaat téléphone jox la sa mot nga continuer sa activité wala li nga doon def ci àddina boo demee foofa sa pouvoir da nga koy continuer bu doon loolu sax ñu ne waaw waaye lépp ay dog lépp ay jeex lépp ay disparaître say mbir lépp engrais lay doon mooy lu amoon te te mënatul amati nga toog diir bu gàtt sa bàmmeel raaf ndeysaan fañ la suul bañ lay soog a suul ña ngi koy jal di fa sotti ndox di ko maasale di ko neng-nengal diir bu gàtt lañ ciy teg taw ba jaar fi maasale pax maasale jal bañ la jalaloon miir su gàtt sañ la miiraloon ndox mi ñëw taaca miir bi ñuul kukk kenn dootul xam lu muy nirool ñax mi sax ci sa kaw tableau bañ la sampaloon ñu naan tableau soxna diw wala sañ diw a nga nee ndeysaan tableau bi ndox mi ñëw na daaneel ko sa bàmmeel raaf na sa njaboot fàtte nañ la say mag fàtte la say rakk fàtte la say doom fàtte la say jarbaat fàtte la say dëkkandoo fàtte la say collègue fàtte say xarit fàtte la ñëpp fàtte la focus ci seenu dund jàll ci leneen yow nga tëdd fa nga tëddoon ana lan moo la fay fekk képp mooy sa jëf ya nga jëfoon ci àdduna mbokk yi nay rafet bu rafetee yàlla dañu koy fay bu ñaawee yàlla dañu koy fay kon rikkuwaay nay rafet eh, ci kon mbokk yi loolu xam naa tey foofu laay yemale waxtaan wi ndax lii ñu mujj a wax moom mënee su cee teg dara mënee su cee teg dara lu dul ubbil leen téléphone bi ngeen mën a woote ci 88 628 14 14 wala 33 849 16 40 bu ko defee ñu xaar seeni contribution ngeen di bëril astaghfirullah dee leen bëril julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dee leen bëril tudd yàlla dee leen bëril jàng alquran dee leen bëril sàkke sarax dee leen bëril dimbalante ci wax baa ci jëf yooyu yépp dee leen ko bëril ndax loolu bokk na ci li nga xam ne yi ma fi wax ni yépp ci ay musiba mooy tax suñu borom musal la ci waaye mbooleem liñ fi wax ci ay xéewal mooy tax nga mën cee jot kon loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo ay ca kon 88 la 628 14 14 wala 88 628 14 15 wala biti réew 00 221 33 849 16 40 33 849 16 40 moo di xàll yi nga xam ne ko ci soobu di nga fii ci seen rajo Futurs Médias ci seen émission yóbbalu jullit ngeen doon ci ànd ak seen mbokk sëriñ Mamor Mbacke kenn Serigne Touba du tey itam incha allahu taala lépp lu ngeen laaj rek dinañ ci jéem a ñëw ci ay tontu bu ci yàlla andee bu fekkee auditeur yegg si na ñu jël ko salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Alaaji maa wëggee ci risaatool. waaw Mbacke wala. jërëjëf Guèye. Mbacke bu baax géey di sant bu baax tey bëggati nag. ah alhamdulilah ndax yàlla. ah dëgg yàlla a am solo moom. ah alhamdulilah kon. tey moom daa boole njariñ ak ak ak ak digle yeddeeg. ndeysaan lépp la boole moom lépp la boole. macha allah ndeysaan ndeysaan ndeysaan tey moom moom moom moom moom gën a dinaa wax dëgg yàlla. alhamdulilah ndax yàlla. ah comme digal nga ni boo li nga xam ne buñ ko waxee mu aar na ca loola. ah wax dëgg yàlla. Ah, waaw digal nu tam li nga xamante ne buñ ko awee suñu borom mën na am am ndawam. Mhm. fii ak fan a jëm. Mhm. Ah, wax dëgg yàlla matale na lépp matale nga fii ak fan jëm. war nañoo mën a mucc de. waaw ah, wallaahi war nañoo mën a mucc. ndeysaan. cey yàlla mais ñaan daal suñu borom defal nu dégg ak rek. amiin barke Ahmadul Xadim. yaa ngi suñu borom defal nu dégg ak topp. amiin kenn nga ne wax lépp. amin yaa rabbal alamin amin amin ah, yow tam yéene ji ci am lépp nga daje ci ngërëm sëriñ Tuubaa amin barke Ahmadul Xadim amin ñu ah, bokk la ko defal amin amin ñu bokk dëgg yàlla kontaan nañ ci ñun baax a baax a baax alhamdulilah ndax yàlla ah, xam naa ne ku mën a jàpp li li tegtal yi nga wax mhm. ku fa dugg pare yàlla mën na la guddal boo fa duggee ndeysaan dëgg la ku topp li nga tam mhm. xay xay na jafe-jafe yooyu mën nga caa mucc mën a mën a egg ci dëgg la de yal na ko yàlla def. waaw ah, kon moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax di gërëm. alhamdulilah alhamdulilah. waaw ah, kontaan na bu baax a baax a baax. wallaay ndeysaan wallaay ah, ndeysaan. waaw yal na la aar la la suñu kanam lool te nga yàgg noo digal ñu yàgg ko tax. amiin ñu bokk ko amiin ñu bokk ko. amiin waaw te daje gërëm Serigne Touba ñun ñëpp nag. barkeb Serigne Touba. waaw dëgg yàlla sant sant nañu bu baax a baax sant nañu baax suñu xol jot. wallaay ndeysaan a gudd kii balaa waxtu gën a dem. incha allah jërëjëf Guèye jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, El Hadj Maaw Guèye ca Rissa Tool ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di nuyu waa Rissa Tool gi yëpp waaye wu ñu kenn di nuyu bu baax it euh, suñu ndaw li nga xam ne moo ñu fa nekkal di euh, Mamadou jaañ ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di rafetlu itam liggéey bu rafet bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy amal ci groupe Futurs Médias waaye rawatina itam ànd bi muy ànd ak seen émission yóbbalu jullit 88 628 14 14 wala 88 628 14 15. wala 33 849 16 40 moo di yoon yi nga xam ne ko ci eh, jaar di nga yegsi ci seen émission yóbbalu jullit ci seen rajo Futur Media RFM 94 point 0 eh, bu fekkee beneen eh, auditeur yegsi na ñu jël ko bu fekkee kenn yegsi eegul itam ñu daal di koy jël salaamaaleykum allo bisimilah. sawa alhamdulilah sëriñ bi noo tudd ak fooy wootee. maa ngi wootee Cheikh Siñaan Touba. Cheikh Siñaan yaa ngi wootee Touba. waaw. jërëjëf Siñaan. waaw dama doon laajte. waaw secret bopp. dama ànd ak li ilaase gi ak xobi new. ban la ci ci lum jëm. ci alal alal. mooy li ilaa fi xoreesin bi ànd a xobi neew yaakaar naa ne bu dul émission bii ba ko jiitu woon biñ ko joxee yàggutoon émission bii passé waaw. waaw baax na dinaa ci ñëwaat léegi incha allah. waaw. dinaa la ko fàttali bu soobee yàlla. baax allah. jërëjëf euh, Cheikh Seck ñu koy gërëm bu baax di ko sant muy wootee kon ca dëkk bu sell boobale di tuubaa Mbacké. dëkku seexul xadim boobu nga xam ne mooy suñu fierté mooy suñu delluwaay foofa itam la mbokk ma doon wax naan euh, bisub layo ba Touba rek a ma doy ndeysaan ñun itam euh, Touba rek a ñu doy ginnaaw bi nga xam ne sëñ Touba rek a ñu doy ay ca kon ñu jël keneen ci téléphone bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gu baax gi noo tudd ak fooy wootee. Ibrahima. Nger. Ibrahima Nger. waaw maa nga dëkk ba dëkk ba ñu wax Mbaye Ndakaar ca Saalum. Mbaye Ndakaar ca Saalum. waaw wax nga dëgg jërëjëf Nger. doon taaliba ci Cheikh Bamba Seck surtout Seydina Aliou Seck. Ah, dëgg sa Seydina Aliou Seck wanaar. waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. waaw maa ngi lay gërëm di la sant suñu yéen na nga gudd fan. amiin barke Ahmadul Xadim amiin. li ngay wax seet barke suñu Saalum su ma yore woon li ci adduna. Mm-hmm. mbàkk dinaa la ko jébbal. ndeysaan. waaye nag ñi nga sàkk ci yow ñaan. incha allah. dañoo la ko sooy bay faal. Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla li nga xamante lañ jox jot a jëf mm-hmm. ah, ñu ngi koy gis de wax dëgg yàlla. ndeysaan alhamdulilah. so sonn ma rek. ah alhamdulilah. yàlla boo sonn. gërëm naa si gërëm naa si samay waajur. ndeysaan. gërëm naa si yëpp mooy Serigne Cheikh Bamba Seck. Cheikh Bamba Seck yal na ko yàlla sàmm. waaw voilà Yuno Seck mi nga xam ne moom mu dalal baax yéen. maa ngi leen a ñaanal itam te da leen sant ci loolu. waaw waaye yow itam maa ngi lay sant di la gërëm. alhamdulilah. dina ñaanal nga gudd fan ak yow ñu nga xamante ni yéenay liggéey ci rajo bi yëpp. bu ngeen monté moom wax dëgg yàlla lu baax rek ngeen di wax. alhamdulilah. lu rafet rek li ngeen di wax de wax dëgg yàlla li ngeen di wax de. ndeysaan. waat naa ko ci yàlla bu fekkoon ne Sénégal bi yëpp moom la ñu doxee. ndeysaan. jàmm rek mooy am ak xewal. ndeysaan alhamdulilah. wax dëgg yàlla. ndeysaan alhamdulilah sama xol bi daa xaw daa xaw a feere la man xam moom am lu nga xamante daf ma ko xaw na may ci yoonu Sëriñ Tuubaa mooy àngam mu ba sëkk. alhamdulilah yee te te te loolu day ñun ñëpp moom la ñu wër. da da da sàkk ci yow rek ñaan nga ñaanal ma. incha allah yal nañu ko yàlla defal ñun ñëpp. waaw li manque ci man nag bëri na. ndeysaan. li manque ci li nga xamant ni lu demee nekk wàllu nekk waaye ñoom seen yooyu noonu. ndeysaan. waaw bu nga xamante ne maa ko mën a seeral sama bopp. ndeysaan. moom lay sabab la di ko ñaan ci yow nga di leen sàkku nga ñaanal ma ko te yàlla. la ko yàlla defal te mu gën ci yow. Ah. te mu sedd guy ànd ak yokkute gu mët sëkk ak xéewal yu yaatu ak gudd fan ak gu wér ak njaboot gu barkeel. yàlla na ko yàlla defal ci barke Ahmadul Xadim mi taxoon ngay sonn amiin te sëñ tuubaal la sëñ Abdou doon wax naan ñemewul bor daa amuk fay waaw loolu la sëñ Abdou Lahad sëñ Saliou waxoon na ko ndeysaan yàlla la sëriñ bi fayal boppam amiin mm, jërëjëf amiin jërëjëf jërëjëf euh, mbokk mu baax mu tedd mu sell moomule euh, ndeysaan wootee ca Morona ak kàddu yu rafet yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko ak soññee boobu nga xam ne ñun soññaan nañu ko ñu jël keneen salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. ay ca ku baax ku tedd ki. sëriñ Sane Seexuna Seck. ca Touba. waaw Xaadim jërëjëf Seck. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. naka waa xayra de. ñëpp a ngi ci baax a baax xayra un sax yaakaar naa. xayra xayra un waaw. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. a ngi ci jàmm bu baax naka bisub xasaayit bi. bisub ndeysaan. di na ko yàlla na mu. amiin amiin barke Ahmadul Xadim amiin. barke Serigne la ñaanal tawfiix ak taysiir rek comme ni ñu ko daa Xadim. amiin yaa rabbal lépp loo bëgg rek yàlla defal la ko te yombalal la ko ba sëñ Tuubaa amin yaa rabbal alamin amin si wax ñu ngi lay ziare bu baax a baax wallaay sëñ Xaadim ñi ngi la koy delloo bu baax sëñ Seex naa am na yàlla na yàlla na ba lépp ñu doon saako nag lu baax ci commerce lu baax ci commerce waaw commerce yi waaw na lii mbokk mi laajoon léegi sax incha allah dinaa ko joxewaat waaw ah, kay waaw waaw waaw daaw baax na lool ci commerce boobu boobu moom maa ko doon bàyyi xel moom moom bis ba laay xel incha allah yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm allah amin yaa rabbi incha allah oh. <laughs> baax na wallaay ndeysaan jërëjëf Seck maanaam maa ngi ko baax maa ngi ko xel baax moom nga wax la la première ci weeru olof nga wax benn fan weeru olof dëgg la benn fan weeru olof soreetu boobu moom waaw boobu moom maa ngi ko bàyyi xel bu ko yàlla fekk léegi jàmm ñu taal ko amin amin ba si yow xam di dinaa lu baax ci mbirum commerce incha allah jërëjëf baax na bu soobee suñu borom di la ñaanal di sàkku si yow ñaan bu baax amin yaa rabbi amin amin ñu bokk incha allah amin baax na jërëjëf amal jàmm ak taw bu baax amin incha jërëjëf euh, sëriñ naa Seck di wootee foofale ca Touba xayra ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di nuyu waa Touba xayra gi yëpp moo xam mooy xayra 1 xayra 2 ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu bu baax nag euh, sama mag di sama sëriñ euh, di sama xaritu bopp muy sëriñ Modou Abdoulahi Mbacke ma nga foofale ca Touba Beto maa ngi jot message am léegi sëriñ Modou Abdoulahi Mbacke ca Beto ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko siyaara Euh, di nuyu bu baax a baax kilifa béto Beto moo di Serigne Baara Mbacke euh, Beto mi nga xam ne mooy xalifa xalifab Serigne Moustapha Mbacke Beto di xalifab Serigne Mor Soxna itam ñu ngi ñaan suñu borom moom Serigne Baara Beto yàlla yàggal ko fi te dooli ko wéral te dooli ko kàttanal euh, te sàmm ko te aar ko ci barke ku tedd ki di Ahmadul Khadim Khadimal Moustapha 88 628. 14 14 88 628 14 15 biti réew 00 221 33 849 16 40 loolu moo di xàll yi nga xam ne ku ci soobu di nga yegg si file ci seen rajo Futur Media yéen mbokk ñi soog a dab ñu leen di fàttali ne seen émission yóbbalu jullit ngeen di déglu fi ci RFM Serigne Mamor Mbacke kennal Serigne Touba ci micro bi Makhtar Samb ci wàllu ko xarale gi ñu koy gërëm bu baax di ko santaay ay ci kon mbokk ñu ngi leen di xaar. Eh, zéro heure moom moo jot ba tegal 40 minutes xam naa li des ñu yëkkati jataay bi eh, bareetul ndax tey moom Euh, pàcc bu mujj bi di actualité bi xam naa daañu koy euh, jéggalu ba euh, beneen ajjuma ci jàmm bu ko defee incha allah fekk ndongo ka mën a toog fii ñu mën a waxtaan ak moom kon ñu ngi leen di xaar ba tey bu ngeen yegsee rek ñu man leen a xàllal yoon wi dafa am ku yegsi wala kenn yegseegul kon ñu ngi leen di xaar ba tey ci numéro yi 88 la. 628 14 14 en attendant kon ma tontu laaj bi nga xam ne moom la ma mbokk mi ca Touba laajoon léegi bala ñuy jël keneen mu wax ne dafa bëggoon ma dellu siwaat ci secret bi nga xam ne moom laa waxoon ci xobi new yi dafa doon secret bu ubbeeku bu doy waar secret boo xam ne ci wàllu ubbeeku rek la jëm maanaam képp ku tëju wala ku bëgg sa wërsëg yokk nga bëgg sa alal bari nga bëgg weer woo ko defee daal suñu borom ubbi ca sa wërsëg bu baax ba nga yëg ko yëg ne am nga loo mësta am ci sa àddina tey dana la jig dana barkeel incha allahu taala weer wu nekk benn yoon képp nga ko cay def dangay dem ba ci bis bi njëkk ci weer wi ma jël kii kon te weel salaamaaleykum dafa mel ni kooku dem na aca mbokk moom rëcc na ñu ngi koy jéggalu ci xaar bi euh, ku yegg si waat rek bu ko defee ñu daal di koy mën a jël euh, directement ci 88 628 14 14 wala 33 849 16 léegi nag weer wu nekk bis ba ca njëkk nga koy def euh, bis boo ko defee day bu soobee suñu borom xaalis dina bàyyi dina la bàyyi koo ci wet gu nekk ba yéem la dangay wut fukki xobi neew ak juróom maanaam quinze xobi new fukk ak juróom wenn xobu ne wu nekk nga bind ci benn baat ci lii li ilaafi Qurayshin waaye da nga koy danga koy tegale nag dangay ngay bind baatub li ilaafi ci benn xob teg nga jël weneen xob bind ca xoraychin jël weneen xob bind ca ilaafihim jël weneen xob bind ca rihlatas jël weneen xob bind ca chitaa jël weneen xob bind ca wasayfi jël weneen xob bind ca falyax budu jël weneen xob bind ca rabba noonu nga koy toftale ndax li ilaafi xoraychin fukki baat ak juróom la te fukki xobi new ak juróom ngay wut léegi nag fukki xobi new yi ak juróom xob bu nekk boo ci bindee benn baat ci ilaafi fukki xob yi ak juróom day jeex bu ko defee boo noppee nga def ko ci la ngay sangoo nga def ci ndox nga sangoo ko sept jours mu di juróom-ñaari fan boo ko mënee di sangoo la matin nag mooy li gën ndax waxoon naa leen ni bépp saafara bu jëm ci wàllug jalbu bu jëm ci wàllug luy xëcc sangoo ko suba moo gën bépp gàllaaj bu jëm ci wàllug luy jañ sangoo ko guddi moo gën bépp gàllaaj bu jëm ci wàllu xeex wala wàllu xëccoo sangoo ko ci diggub jant moo gën maanaam ci digg bëccëg bi loola itam ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax beneen bi ci topp sëñ Xaadim mi ngi may laaj léegi lu jëm ci wàllu bayra njaay loola moom efficace na lool nga wut suufu euh, euh, maxu guy maxu guy maanaam nga dem ci ak guy gu am max gu maxe nga faxas ca max ga nga wut xorom nga wut suukar nga boole ko def ko ci butéel def ci ndox mu sell ndox mu laab nga boole ko def ko ci butéel incha allahu taala loola moom bayre la loolu jarul ngay bind dara amul looy bind amul looy maas raxas maanaam loolu rek ngay def boo ko defee nga di ko raxasoo di ko wis ci lépp loo xam ne looy jaay la waaye di ko raayoo loola bayrem jaay gënu ko efficace te loolu ku jàngul it yaakaar naa mën nga koo defal sa bopp ci kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom la mbokk mi laajoon. Euh, bu fekkee xëy na kon kenn nekkul ci yoon yi yaakaar naa ne maxtaar euh, war nañoo mën a faf yëkkati jataay bi ndax comme actualité bi amul tey te moom lañ doon xaar bu une bu une heure matin jotee euh, te comme suñu borom def na amul tey kon yaakaar naa mën nañoo daal di faf yëkkati jataay bi ndax li ëppoon solo maxtaar yaakaar naa ñëw nañ ci ba pare mu di waxtaan bi ek pàcc bu njëkk beeg secret yu am solo yi nga xam ne moom la ñu indi woon tey. aca kon maa ngi leen di dig daje ba ajuma bi dellu si ak jàmm ci waxtu wi ci même fréquence même heure lépp loo xam ne lu ci juboon la ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax lépp loo xam ne lu ci dëngoon la ñu ngi koy jéggalu sëriñ Mamor Mbacke kennal sëriñ Touba ci woon micro bi maxtar Samb ci woon xare gi yéen askan bi ci woon déglu bi ñuy gërëm bu baax a baax Diop RFM ci jàppale gi ci émission bi ñi nga xam ne itam ñi ngi doon kocc koccal ci yoon wi bëggoon a si ñi ngi leen di jéggalu Euh, te leen ñu tekki ba ëllëg ak jàmm bu ko defee rek ñu daal di mën a njëkkante ak waxtu wi ñuy sant ñëpp kon di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu fanaan ak jàmm jërë ngeen jëf ci déglu bi